ci perkat yi. le grand le grand ah, champion. suñu père la borom xam-xam la. Uh-huh. waaw ah, jënd tamit jiili bi mu wax raaroon na nag mais mu ngi ñëwaat moment bi parce que am na combat mook Cheikh Niang mu ngi ñëw di assister xam nga soose tamit perte tamit tout temps mu ngi perte di ñëw ci ñun xam nga taxaw chaque heure ñu respecté heure bi quoi rek mooy jar mais loolu mooy seen problème mbër yëpp duñ ñëwandoo waaw waaw waaw mais ku mel ne ne mu ngi ciy liggéey doy waar mook perte parce que teg nañ ay sanctions yoo xamante ni moom soo ko xalaatee sax. dangay ngay bëgg a dem 13 heures wala 15 heures nañ ko xam. non ku ñëwul doo entraîné. ku ñëwul. ku ñëwul mois bi yëpp doo entraîné. comme tey mois de février bi. waaw waaw soo absenté benn jour yeneen jour yëpp ngay dem géej. loolu waaw loolu mooy charte bi te gars yi duñ ko respecté moo tax instant yi 15 heures sax su jotee da gis gars yi ñëw tëdd ci école bi toog di xaar. Hmm. Gris mu ngi ñëw. waaw Gris waaw mu moom nag dafa xawoon voyagé fan yi ah, mais xam naa waaw Gris 2 moom moo ci war ñëpp sax fii mu nekk nii moo ci jiitu ñëpp parce ah. que xam nga ne parce que xam nga ne am na combat waaw. Ah. moom moom mhm. appartement da nga ñëw fekk ñu école bi mu tëdd moom. Mhm. yaakaar naa ne di ko di ko di ko di waat rek ah. ah. affaire yi moom yombul booy surtout lamb booy yombay découragé. mais charte fàcce ne boo waaw mais xam nga. weer yëpp doo doo doo ànd waaw parce que loolu aussi tamit maanaam euh, mbër yi buñ nangu maanaam seen dirigeant wala seen entraîneur di di gën a bëgg seen bopp. Mhm. ndam dafa neex. maanaam nga bëri daan at bi di sa loxo. Mhm. nga am fierté di ñibbi sa kër di ñibbi sa koñ. nga am fierté tey di statut nga am fierté tey di génn si koñ bi tey nit ñi di la bëggee di la félicité. Mhm. loolu dafa la war a jaral lu ne. entraînement mbër daf si war a assidu yi mbër dafa mhm. war a respecté entraînement parce que li may wax à chaque fois mooy numéro un ci mbër entraînement heure entraînement jot lépp loo doon def nga dagu ko dem entraîné ji waaye kare maa ngi fi invité ay course leen di def boo amee sa mbër muy préparé combat entre heure entraînement jot ñëwul le lendemain mu ñëw ne nga ne ko foo nekkoon mu ne la non dama voyagé mhm. ko mhm. mhm. ñaan rek parce que ni ma gis ci dynamique d' entraînement bi mu tegu nii moom. gëm naa su ko continuer yàlla mën nañu ci suturaal quoi ñoom ci ndam. moom dafa pare invité actuellement noo gisee nu mu mel. Gris non macha allah mu ngi ci su suma moment bi ñu reporté combat bi noonu. Hmm. non moment boobu moom moment boobu moom macha allah. Gris boobu Ama mënu ko téye. non yaakaaruma ko parce que li ma gis muy entraîné gëj naa gis mu def ko ci ay combat yu yàgg jëpp damay may seen entraînement laa hmm. am na li ci kanamam moo tax. moom doomu daangu waaw moom doomu daangu waaw. ngi ci bu baax baax di koy hmm. wax rek na yokk entraînement yi. ni mu ko jàpp ni daal mu continuer ko quoi. na ngeen dundee euh, nul Lac de Lac Rose ak Fils de Balla. waaw waaw yéen victoire la si yéen wala. non victoire la si ñun trop parce que dafa beese woon beese boo xamante ni ñëpp dañ ko génne woon sax làmb ji. te mm-hmm. wóor na yàlla li ko dese sax moo ëpp li mu passé. Mm-hmm. mais xam nga bi perte vague jàppee perkat yi jàpp ci. Mm-hmm. mën naa ne préparé ci diir bu gàtt rek te bi mu ñëwee sax wane na loo xamante ni ñëpp xam nañ su nekkoon 100 pour cent. waaw kon du taxaw ak waa ji te pourtant sax amul sax 50 pour cent. di mhm. laay te tënne na fils de balle naaj. Mhm. moo tax dañ koy encouragé di ko wax ne yokk affaire parce que lamb am na ci place quoi te lamb mhm. bëgg na ko. bëgg na ko mais mais Fass am na ay moment yoo xam ne départ yi bari na. Naar jóge fa. Ballou Diouf jóge fa. Papa jóge fa Fass nekk crise crise boobu yéen Fass nan ko dundee ba génnewaat équipe bi. non pourtant loolu crise sax parce que. ah crise nga am non Balla Diouf dem Balla Diouf nga xam ne bopp bi xam-xam kese la. waaw Boy Naar dem la moo nekkoon problème bi à face. waaw mais soo xoolee ñooñu bi ñu demee xoolee ñu fa des ñooñu bi ñu demee. c'est ah. vrai ànd boo gis moom am na fu ko yàlla yemale quoi. waaw xëy seen ànd sax moom mu jiitu woon écurie Fass. Uh-huh. mais teewul bi mu demee tamit mu ngi rafet te yàlla tam mu ngi sultaan écurie Fass ñu ngi bëri daan dirigeant ya fa nekkoon. Uh-huh. li ci ëpp important mooy nga am encadrement bu baax am staff te Fass am na loolu. Uh-huh. ndax foo gisee Père Abbas Ndoye kenn ku ne bëggoon na am président mel ne Abass Ndoye ci say écrit hmm. xam nga père Youssou Lakum waaw père Youssou Lakum ñëw père hmm. Maman Ndiaye ñëw xam nga hmm. père Tafa Gueye ak coach yi ñu fa am coach Socé ku ne xam na Socé waaw waaw Socé ndaanaan la gis nga ah. man dama koy gis entraînement sax ma nekkee ne Socé dem ci magat bi di xool ba une heure jotee duñu gis Socé su ma ko gisoon ci mbapat nii jamono bi ñu toj mbapat Colobane ay faas yi ku mënoon dinaa dama xamante moom sax dama naan bi ma demee ba jege ko tamit dama ko gën a jox cër xam nga muy suñu gannaaw ñun ñëpp ñu respecté ko bu baax a baax a baax parce que xam ne ñun lu ñu mën rek moo ñu ko def quoi moo ñu nekkoon Fass mu nekk Fass magam Ousa Sow ay frère am nekk Fass demu Papa Sow bi waaw dem Papa Sow moom neexuñu woon ñun bëri susuma man dama amoon moom relation muy sama gannaaw nekk sama xarit mhm. parce que bi may bëri buli même soo xoolee vidéo séance d'entraînement yi waaw ñëw na ci jàppale ma carrément xam nga soo xoolee même bi mu amee gars yi réeroo sax enveloppe en tout cas lettre bi ñu ko joxoon. bi mu ko d'accordul ak gars yi man yóbbul naa ko sama bos sax pour mu modifier bosam pour mu mën a dégg ko yi hmm. ndax bi ñu joxe lettre yi man ñaar lañu dañu juumoon jox ma ñaar yu tegloo. léegi bi ma jëlee sama bos beneen bi bi nekkoon si suuf ma dem yóbbul naa ko ko këram. Hmm. mais boobu jël na décision ba pare ànd bu war a jeex la jeex na xam nga def naa ci lu ma mën. Hmm. xam nga mais dama xam ne foofu la war a yem quoi. demu demu Papa Sow amul lu mu wàññi waaw non mun naa ne wàññee fa lu bëri mais minante bi la wàññee woon parce soo xoolee engouement bi mu amoon toog entraînement oyofoon na trop ci ñun mbëri ndaw yi waxtaan ak hmm. mu xool ñu nga mais da ngay xam la ko yàlla yemale woon quoi hmm. moom tam ku baax Balla Diouf tamit jóge fa waaw Balla waaw moom tamit moom conseil am rek lu bëri la doon def loo xamante ne xam nga lu ñuy jëmale kanam la hmm. moo tax tam bi ñu fa jógee la ko yàlla yemale quoi waaw booy naar waaw waaw waaw waaw waaw naar tam waaw waaw naar tam moment boobu jógoon na fa moom tam mais dañ koy def comme gars yëpp rek sant ko rek xam ne xam ne fii la waroon a yem quoi ah. parce que yàgg nañu ñoom ànd nañ pendant des années ci lu rafet mm. te bi ñu génnee tamit génn nañu séparé séparation bu rafet quoi mm. Mm. mais da toog tamit jamono euh, Boucar tu peux à tout moment su nekkee am na question balaa ma rebondir si parisien parce que il faut <laughs> dafa mel ni gars yi dañ ko démystifier par rapport ak écrit Fass bi ñu daan dégg Fass. Fass Fass léegi ñu jékki-jékki rek Fass ñëw. Hmm. dafa di tegaloo. Ah. xam nga mbëri ñëw duñu entraînement fii nga gis. non pourtant Fass bëriwul ay defet de. Hmm? Fass. Ah. Fass am na jamono dafa di bëri. Fass fa moo ngi fële toog léegi nekkatul si yéen wala. ah 2 de mooy borom Fass 2 moom su ko neexee tey mu dem écurie mu ñëw dëkk dafa xaw mu ngi dëkk Mbaaw. Ah. waaw écurie Mbaye Gueye moo gën mhm. moo tax mu rek pour entraîner foofu quoi. dëgg la waaw moo tax mais tout temps mu ngi écurie Fass. mais am nga beneen départ boo xam ne tamit man pour man manqué na Fass muy mm. Moussa Niang ah père Moussa demoon père Moussa ñu bien que âge bi magal na mais am na ay moment dafa dafa dem.

ku ko ku ko gisaa xam ne liggéey na lu bëri Fass ko moom liggéey na lu bëri Fass Bougar. Mm-hmm. Euh, euh, fi may fi may ñëwaatee rek mooy tey fi mu toll nii tey say projet lan la fi mu toll nii tey say projet personnel yoo xamante ne tey bëgg nga bëgg nga mu antu. waaw samay projet mm-hmm. waaw moom laa wax tout à l'heure ku ci mel ne Père Mama Diarra su ci jàppee ak Père Youssou Lakoum. moo tax ma ne mën nañ ma nañ ma jàppale si làmb ak ordre làmb parce que du làmb rek moo fi nekk quoi hmm, mais même ordre làmb war nga mën am ay projet waaw am na ay projet yoo xam ne ni loolu waxtaanu biir néeg la quoi ñoom hmm. suñu ma woowee rek ñu waxtaan si père Youssou Lakoum xam hmm. jàppee rek mu baax quoi am nga beneen métier bu may liggéey moom mooy lan waaw ah, parce que électricien super laay liggéey quoi ah électricien ah, waa Pikine bu Moussa ñi gën a ñëwoon ba sol mayo Calverson bi booy Pikine dañ doon lox yéen da ngeen ragaloon ba booy booy phase loolu loolu bataille psychologique la rek. xam nga ah. ni ki moom bu fekkente ne yow mbëru Ndakaar nga. waaw maanaam fii nga yem Dakar. Ah. boo gisee yooyu da ngay jaaxle. mais boo jëlee sa saak def nii. Ah. nga dem fekk paa bu toog indi mbërëm. Mm-hmm. yàlla may ko lu mu koy may. Mm-hmm. nga war a jàkkaarloog moom nga xam ni kii ma jàkkaarloo léegi. Mm-hmm. war na ma mën a téye ba du ma yëngu. nga fexe ba affronté ko. waaw boo Moussa ñi gi dañ koy yóbbante xam na mag ñi fuñ ne. Mhm. waaw mais day dem jëli ji indi. Mhm. bokkut ak ki nga xamante ni da ko yor toog ak moom nga war a janoo ak moom. Ah. Mhm. waaw kon seen diggante Pikine ak Fass. lan la waaw loolu dafa jiitu suñu judd xam nga ñun dañoo ñëw judd fekk fi dér boobu noonu. waaw moo taxoon xam nga même mbër boo doon bëreeg mbëru Fass te amoo doole sax. yow boo ñëwee li nga am doole par force. Ah. ndax li ngay dégg. ak engouement bi maanaam. Ah, gars yi fi ñuy yóbbu làmb ji. waaw ne hey da ngay jékki-jékki benn Zil Balde wala on kenn ci hmm. gars yu Pikine ni ñu la hey koy bëreel waa Fass. non ñoo nag ñoom du yomb de mosuñ ñoo yab de. saaga bi nag du jóge ci uh-huh. yow. Uh-huh. tegal sa bakkan. Mm-hmm. nga ne ok. nga dem. waaw mm-hmm. ah, léegi loolooy waral boo leen ñëwee xam nga der bi boobu day métti métti koo xamante ni am na saa yi foo ko natt weesu na ko. yow bëggoon mbër Fass daan la. man moom wax dëgg ne yàlla bu wax dëgg neexee yàlla rek wallaahi mosuma yaakaar ni dinaa bëri waa fas ñu daan ñu daan waaw parce que man dama ko yàgg a wax hmm. boo xoolee kii bi may bëreeg Baye Ndiaye Baara Ndiaye parisien hmm. dafa ñëw ërtal ma wax wax wax ma taxaw di ko xool rek parce que man yàlla dafa ma dimbalee benn caractère boo xamante ni sama adversaire rek laay waxal hmm. mais keneen ku ne ci ginnaaw. loo wax jéggal naa la amul problème. Mm, si làmb la waaw léegi moom bi mu ñëwee ërtal ma ërtal ma topp ma ba ñuy waaj dugg ci plateau bi ma ne ko booy. yarul rek yow yaa may wax lii mais Baara Ndiaye gi nii taxaw duma ko wax. Mm. parce que maag moom ñooy dugg ci géew bi lépp lu mu ci wax. Mm. dina métti ci moom lool. te ma ne ko Baara Ndiaye jëluma ko pour daan dama ko jël pour daan mm-hmm. te dama koy daan bu neexee yàlla. léegi nag après bi ñu paree noonu xam nga Baara Ndiaye ñëw aalu wax wax wax mën a tekk rek dégluwuma leen parce que instant boobu noonu bu ma leen toppoon dinañ jote parce que comprendre naa leen tamit xam nga ma xam ne lii làmb déer bi la warut a yàqu man fi soxla naa ko combat bi te xam naa ni Baara Ndiaye ndaanaan la bu ma ko daanee mun na ma yokk dara mm-hmm. waaye looloo taxoon xam ñu préparé ko ni ñu ko war a préparé waaw dërëb Pikine Fass waaw loolu moom li mu wax rek daf ñu mag quoi daf ñu jiitu ah. parce que ñoom ñaar ku ne day jàpp sa morom ngaaka bi kii jàpp ne mooy nante bi ah. xam nga moo tax bërki ko alliance Baldé ah, xam nga moom du bañ alliance mu ci ay defe du metti te man ci ay victoire laa toog c'est que début dëgg la début bay tax ma bëgg ko rek mus naa fa bëri benn mbër Pikine mooy zogo Pikine sëñ Modou Niang moo ko tëggoon waaw am naa fa benn bu ma fa toogee mhm. xam nga moo tax pertavaage bi ma waxee bëgg naa ma ndax bëgg ne ko maa ko mën mais su ñëwee comme Pikine la ma yokk ci lim bi rek mais euh, est-ce que derby Pikine bi est-ce nekkul maanaam li amoon ay mbëru Pikine yu nekkoon écrit Fass ba jékki-jékki ñëpp si mhm. bëgg a wane ber beru ñuy wan leen ne non li ngeen am ñoo leen ko jox wala ñoo leen jàngal bëre mhm. est-ce ko léegi mhm. loolu moo doon gën a andi rivalité bi en si parce que dafa dafa ñoom ñoom Pape Diop ñoom Père dafa mel ni ñoom ñëpp dafa jaar na Fass mais loolu loolu mooy indi tey Pikine Parcelles li nekk Pikine Fass mhm. moo indi Pikine Parcelles waaw xam nga waa Parcelles yi ñu ci bëri Pikine lañ newoon waaw ñoom ñoom Zos. ñoom Zos ñoom. ñoom Dolf. ñoom uh-huh. Xaarim Gajaga ak ñena sa fàtte naa ñeen ñoom Neeka. waaw waaw ñooñu ñëpp daan nañ ñëw foofu. ay ñoom Mathieu. Uh-huh, Mathieu meen waaw dëgg la. moo tax gars yi dañu bëgg rek di Fass Pikine mais affaire bi du Pikine parcelle de Fass uh-huh. Pikine la. Fass Pikine la Fass Pikine la la moo yàqu rek. combat bi mu nekk nii. combat Bara Ndiaye. waaw waaw Bara Ndiaye waaye jët li ak ak jët li xam naa euh, technicien xam naa dañ ñëwaat si bi ak. Euh, ki nga xam ne mooy jet li dañ si ñëwaat en ñu jéem a conclure rek ak ki nga xam ne moom mooy léegi sa carrière noo ko gisee sa carrière sama carrière waaw xaw na taxaw parce que toog dama daan calcio toog deux ans bëréew ma mm-hmm. te bii su demaatee defe naa mooy nekk troisième année bi mm-hmm. du lu ma gënal parce que maa ngi entraîné tout le temps mm-hmm. Fass dañu dem ba sumil ma sàkku sax semaine passée ñëpp ne parisien ni mu respecté entraînement yi te mënuñ bëre mu jaaxal a jàpp quoi moom daal talal ah, ah, ah, bëgg bi moo lay animé mm-hmm. des moo tax peut tey nga mën di muñ mm-hmm. di mën di surmonter yu bëri parce que lamb dafa métti ni ma ko waxee mm-hmm. tey jël avance peut war si mënoon jël taxi wala nga war si mënoon def dara nga dox si li des nga yóbbu ko sa waajur parce que fii ku fi nekk tey bëgg nga teraanga mhm. ku si nekk tey bëgg nga sa yaay wala téléphone ne ma dama am problème nga rocci jox ko même boo yorul sax yow rek sentiment de satisfaction bi ngay am rek mhm. kin xamul ni mu toll te malheureusement am na ñu amul chance boobu noonu mhm. bañ a rek yokk ci rek